temps yëpp yéen a ngi dégg ci rajo yi ak presse yi ñuy wax problème mu Dakarnave ba tax na fi mu toll nii yaakaar naa ne tey dëkk bi cool li moo fi lëmbee problème mu Dakarnave te loolu nag dara waralu ko lu dul euh, benn ministre boo xamante ne nii tey mooy suñ ministre de tutelle nga xamante ne tey tey moom moo sansoon protéger ñu ak suñ directeur général un certain directeur général bu ñuy wax Saliou Samb moo yor. la société bu ñu wax CIRN CIRN mooy société bi nga xamante ne moo yor patrimoine u Dakarnave mooy mooy mooy gérer les intérêts de l'État au niveau de Dakarnave ñoom ñaar ñooñu ñoo déggoo seen biir xam ne xëy na fi ñu toll nii comme euh, élection yi ni mu demee nii daanaka euh, ñoom jeexal nañu ñu bëgg nag balaa ñoo dem ñu def li ñuy wax naan la tactique de la terre brûlée maanaam xeex bi xare bi ñàkk naa xare bi waaye dëkk bu ma woon ginnaaw rek naa ko taal. bëgg même ki may gi du fa ñëwee du fekk dara te ñun loolu nag lañ ne ñun duñu ko nangu léegi ñoom fexe nañu def seeni i pe seen i manigance ci seen i intérêt bopp nag seeni coobare bopp kese kese def nañ seen i manigance benn euh, contrat de concession bi nga xamante ne nii moo lié woon Dakar Nav Dakar Nav dama ne filiale groupe Lisnab la bu nekk Portugal parce que en 1999 pour historiquement rek en 1999 bi nga xamante ne ni Dakar Marine bi fi nekkoon daanu na comme ni SIAS daanoo woon ni ni nii ni Sosetra so kii Sotrac daanoo woon noonu la noonu la Dakar Marine daanoo woon alors bi ñëwee état bi temps Abdou Diouf ñoom ñu ñu ñu filé woon contrat bi concession bi Dakar naaf gagné woon ko ñu laasoon appel d'offre international Dakar naaf gagné woon ko Dakar naaf boobu ça fait vingt cinq ans ba léegi moo ko yoroon contrat bi war a jeex nag juin 2024 bii ñoom nag ñoom ñaar ñooñu ñu ne fi mu yi moom cere ji moom comme lekk ma lekk ma ci naat ci xëpp suuf comme xam nañu ñoom dañuy dem seen jeexal nañ fi ñu def en un temps record taf tafee def seen i combine wut seen i xariti bopp yoo xam ne kenn xamul fu ñu leen jëlee ñëw ne dañ leen di filer contrat concession Dakar naaf bi. léegi nag loolu ñun bi ñu ko déggee ñun sous-traitants yi ñi nga xamante ni ay père de famille lañu mo nekk plus de 1700 personnes di fi daan suñu doole. te xam ne sous-traitants yi aussi daanaka boo jëlee téeméer juróom-ñaar fukki yépp nekk Dakaar sous-traitants yi ñoo ko fay liggéey ñoo koy def ñun ñooñu ñun ñoo ne ñun loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg nag dañu amoon suñu plan d'action plan d'action boobu nag yàlla dafa def dañ ko tegandi ci suuf ne comme réew mi am na boroom ku bees léegi te ku bees kii tamit ñëw wone volonté am que ne la fi woon day woon ni moo tax ñun ñu am yaakaar ci moom di ko lancer un appel moom le ministre le le président de la république en l'occurrence euh, bassiru Diomaye fay ak premier ministre Ousmane Sonko ak suñu ministre de tutelle faatu Diouf ñu ne leen li ngeen wax ne dégg nañ ko rafetlu nañ ko ne yéen <coughs> dañ leen a fal ci la base de lépp lu njubati bu neewoon ci dëkk bi ngeen dindi ko fi. kon nag comme loolu ngeen jógtee njubati bi jiitu mooy bu Dakar naaf bi parce que moo fi nekk tege si la table léegi nag ñu bëgg ñoom ñun suñ plan d'action mën nañ ko suspendre en ñoom. seen réaction ñu leen lancer un appel ñu xool bu ñu toogee li ñuy njëkk a def ñuy laaj lancer appel surtout Fatou Diouf Fatou juuf ministre suñu ministre de tutelle dégg naa altine incha allahu rabi lay def passation de service bu ko yàlla dogalee bu ñëwee bu Pape Sagna toogee bureau balaa ma ko nuyu sax na ko laaj ana dossier Dakar naa bi tegal ma ko ci table bi ma xool ñun loolu lañ bëgg mu régler ñu ko d'abord nuyoo daal bëgguñ ko mu def koog moom sax te ci table bi parce que ay pères de famille ñoo fa ne te it amul dara lenn lenn lenn lenn lu war a mën a justifier ñoom ni ñu ko doxalee xam nga bu doon sax am na appel d'offre parce que généralement fii société bu mel ni Dakar Naaf bokk ci fleuron société sénégalaise yi fi nekk ngay def société bu mel noonu ngay cédé concession bi amul sax appel d'offre damay dégg muy wax ci télé yi ne am na mais bu fekkee am na appel d'offre na ko woon nit ñi bu fekkee yéen vous êtes de la presse est-ce que yéen a woon appel amul. ñun ñu soutenons Mor di gis que appel doofu amul dara amul ñoom ñoo bëggoon a def saax saaxe société bi dem bàyyi ñoo su ñuy difficulté léegi nag loolu ñun yaakaaruñ ci kenn ko du autorité yu bees yi te am nañ yàqiin ne ñoom tey bu ñu toogee société Dakar naaf daan ci jóg pour ñu régler ñu ko